asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur u Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ah di ñaan yàlla defal ñu ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li may def mooy tey mardi 7 septembre 2021 dam leen di bàyyi ngeen dem déglu yëglikaay li ñu indi ñu dikkaat yéen si plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 7 17 septembre 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey moom xëtam mu njëkk lam ca xëy fesal maanaam daal démb la nga xam ne moo amoon ca yoof waaye foto mu ñu xëy wan foto wu daw yaram la foto woo xam ne boo ko xoolee sa yaram dina daw lool ndax Balla Gaye numéro 2 mu ngay jooy jël ay loxom teg ko ci ay bëtam maanaam daal di xam le ne daal ñàkk na way jur nag ndax loolu démb ba nga xamee ne nag moom la ca desoon moo doon jël ka nga xam ne moo doon way juram delloo ko boromam daal Balla mënatu ko na supporter loola ba daa bool njur de mujje génn ka ko doon naxtaan di ko dalal mu doon Moustapha gi mel ni ki daal mbir ma dawoon na yaram lool lool lool mel ni ki nag mbir moom mu nga xam ne moo am ci réew mi muy génnuk àddina duubalees ki jiite réew mi di président Macky Sall moom mu ngi koy delloo njukkal jàpp na ne daal athlète boo xam ne boo xam ne amoon na ni lool fonkoon lam daan def te mënoon ko itam daal nee na moom la réew mi perte yemu ca mat ka nga xam ne tamit moo yore réew mi di ministre Matar Ba moom itam wax na ca nee na daal perte bu rëy la ngir nag askan askanu lamb alaaji Mansour Mbaye ku ne xam ne ne jamonoy duubalees fekke na ko moom itam daal mu ngi xam ne ne daal maanaam ki ñu ñàkk daal nit ku màgg a màgg la nu ñàkk ka nga xam ne nag moo di Lac de Guiers numéro 2 tamit Lac 2 daal di doom ci duubalees moom itam day nee na kii génn àddina tey di duubalees sama bàyyi la woon waaye yemu ca woon ca jur ga waaye daf mën a daan conseil daan ma teg ci aw yoon daan ma digal di ma xelal di ma xalaatal waaye yëglikaay ba yemu ca ndax daa continuer ci moom duubalees mu mel ni kii nag soo bëggee dégg dëgg daal wan nañu tey aw photom mook mbay géey ñoom ñaar ñu taxaw te ku ne xam na ne rivalité maanaam ku jégu metti daan na dox seen diggante ca jamono ya nga xam ne ñu ngi ca doon toll waaye yëglikaay ba ta ñëw na ci duubalees di nu xamal nekk tamit ay médaille d'or lam ca gañe bëri na lool yëglikaay ba xayma ko ci 36 médaille d'or ay combat mu toll ci 90 combat combat sunu lamb moo xëy tey ñëw dikkal ci histoire Double Less mel ni ki nag daal lu exceptionnel loo xam ne lu garaaw a garaaw a garaaw la yëglikaay ba nee na atum 1966 la quitté ñëw Dakar ñëw na tamit ci jeux ya nga xam ne participer na ca maanaam jeux olympiques ya nga xam ne daal jot na ja bokk bokk na ci 1976 fa nga xam ne moo doon ca fa nga xam ne moo Montréal waaye yemu ca fa nga xam ne tamit moom moo di ca Moscou ca 1980 tamit jeux e tamit Double S bokkoon na ca ba ca 1984 Los Angeles ga te États-Unis tamit bokkoon na ca jeux e yoo xam ne demoon na ca moom Double S tamit yëglekaay ba fàttali nañu combat boo xam ne bu doyoon waar la yàggoon lool doxan ci duban digganteem ak Robert Diouf yëglekaay ba xayma ko ci combat boo xam ne bëree nañ ko lu toll ci cent vingt minutes sunu làmb xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na war ñu ñu ko muy guy gi moom nag daal jógut ca di dànkaafu Reug Reug rek ba tey daal mu ngi koy dànkaafu ci seen combat bi nga xam ne moom la ñu war a bëre waaye sunu làmb tamit ñëw na ci école de Cheikh Mbaba six victoire sept défaites ya nga xam ne daal def nañ ko mel ni ki école de Cheikh Mbaba daal ren soo bëggee dégg-dégg moom doxle defuñu ko lool lool moo tax nag ka nga xam ne nii daal boo bëggee dégg dëgg moo leen di tàggat di ba da sung daal nee na boo bëggee dégg dëgg nee na seen bilan moom bu feebal la boo xam ne bu néew a néew doole la nee na loolu moom dañ koy nangu ndax nag jàpp na ne seeni mbir moom ren dox defu ko par rapport ak at yi nu génn na mu daan doxe ka leen yore di leen tàggat daal moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu bu nu continuer dem les arènes fekk fa nga xam ne moom moo di tamit mbirum duubalees ba tey ñu won ñu ay photo boo xam ne daal génn ak àddina ak duubalees ak démb na ko waa làmb ak autorité réew meeg religieux ya delloo njukkal yëglikaay bi wan ñu photo ya ci la nga xam ne moo doon ab jataay nit ñëpp toog di ko ñaanal yëglikaay bi mu woo xëy tey wan ñu ko waaye yemu ca ñëw na tamit te ka nga xam ne moo di Tafa Gueye trois siwal deuxième tigre de Fass yëglekaay bi daal mu ngi ko dalal muy wax bala Gaye 2 ak Modou Lo daal nee na mu leen di ñaanal daal ah loo ci mën a dégg daal maanaam daal ñu dépassé ko ci moom la nga xam ne def na ko ci wàllum làmb moom ma nga xam ne ni moom moo di Moustapha Gueye yëglekaay bi daal ñëw na ci loolu dina ko wax mel ni ki nag boo bëggee dégg dëgg daal yëglikaay ba tamit ñëw na di xayma école booy ñang moom ma nga xam ne moom moo di les arènes ne na quatre victoire lañ jot a def deux défaites ñu xayma ko ci 66 pour cent yamu ca fa nga xam ne tamit moo di parcelle mbooloo yëg li kaay bi nag deux victoire trois défaites quarante pour cent yëglikaay ba ba tey moo xëy tey de xayma la nga xam ne moo di bilaay écrier moom mi nga xam ne moom moo di les arènes waaye ba tey buñ fa jógee dañuy ñëwaat ci mbirum duubalees mel ni ki nag maanaam daal mbër ya nga xam ne daal ñooy les lutteurs en activité daal te Gris Bordeaux jiite leen daal jël nañu sec bu toll ci deux cent mille francs jox ko Balla gay numéro de jaalee ko ko yëglikaay bi ñëw na tey ci beraf yi wax nu ko war nañ tamit ca beraf ya nga xam ne nii daal moo di Malick Gakou ak ka nga xam ne moo di Abdou Aziz Ndiaye yëglikaay ba moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay ba wan nañu ko muy ay mbër yoo xam ne daal yëglikaay bi ay géant la leen jàppe moo xam Jordan la Elton ba ci soko sim jaajàpp ni ñii moom seen taxawaay wala seen i tànk dëgër moom defatu ko fi mu nekk nii ci làmb ji maanaam daal nan taxawee daal boo bëggee dégg-dëgg wóor defatu ko loolu les arènes moo nu ko xamal beneen xale boo xam ne nii moom Pape Ndiaye lañ koy wax ñii naan ko soox sox cinq drapeaux gagné na ko ren am lu toll ci deux millions ak wennu nag moom nag daa mel ni daal boo bëggee dégg dëgg jàpp na ne ab saison moom ren dese naa baax kon nag léegi fan kay tëjee maanaam daal moo doon démb la nga xam ne moo amoon mel ni ki nag dubales démb bañ koy yóbbu ca këram gu mujj maanaam photo ya yëglikaay yi ñëw nañ ca seen xët yu mujj wan nañu ay photo yoo xam ne ñépp a ngi toog biir almer kër gaag la xew lépp moo xam les arènes la ba ci sunu lamb gis nañ tamit mu mel ni askanu làmb kenn desul moo xam mbër la ñoom tafaatin boy ñang guy gi ama seen maanaam daal Gris Bordeaux boo limee sax da ngay juum maanaam ñoom ñépp ñëw daal fekk Balla Gaye ca naqar wa nga xam ne moo ko daal moo ko rakkam Sa Thiès ñu ànd jàppale ko kon li olof daan ñu bokkum teen ñooy laxasooy goj kon mbir yi buñ ci tolloo di ko pratiquer donte adversité day am na nay rafet ndax bés yu mel ni faw mu am te bu ñëwee kenn du ko yéene sa moroom kon sunu moom du Sakho ñu naan ko duubalees yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana meg bopp jullit bu mu fekk ci suuf ak bu ko ci fekk barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi moo xam sunu làmb la moo xam les arènes la tey fi ñu xëy dikkal ah yaakaar naa ne fu mu tëjee woon sànq rek fa lay ubbewaat mu ñaan yàlla ñu tëdd ci suuf yàlla na leen yàlla jégal te xare leen aljana ah, démb defe naa ne suñu papa duubalees heure bi démb ñu ngi koy denc dénk denc wala wala boog démb lañ ko jébal boromam mbooloo mi ko topp bari woon na trop biñ koy yóbbu si armée lu yoof yi waaye ku dugg démb yoof di nga xam ne àddina lu la looy looy looy def rek xulle te te nekkul mbaax rek yaa ngi koy yàq jéem a baax jii jéem a te jàmm di ko waxante dafa am solo parce que bés yu mel ni day am te force mu ñëw yaa ngi dégg loolu mooy li am démb la ko commencé golf ba ci armée la mbooloo mi kenn xamul nu mu toll kenn xamul na mu toll ñi dañuy dugg rek di ñëw rek ma ma euh, te dafa am loo xam ne xulle moo am gis nga euh, bu nit wàññeekoo armée la bëri nit ka dem a baax waaye bu siggin diggaale bëree ña mu bàyyee baax kon moom mi dem ku baax la moom lees waaye ñu fi bàyyi tamit ñu baax lañu buñ ko dee wax nag doomu Balla gay la ñuy wax ak Sa Thiès ak ña nga xam ne ñoo di yeneen ay magi Balla yoo xam ne ñun xamuñu leen parce que ñooñu xëy na la Balla pratiqué ba ñu xam ko xaw ñoo ñu defuñu ko waaye loo ci mën a dégg daal démb tamit ah boo liiree nag tey ci xëtu yëglikaay bi nga gis tey photo bii nga gis nii photo bu daw yaram la gis nga Balla na mu sëggee ndaysaan jooy parce tamit dafa metti lool way jur yaa ngi dégg nga tiim ko di ko jébal borom neexut moo tax mujj ko sax dafa mujj génn wax kàddu yi muy wax ma ne see jaar parce que dafa daw yaram mais loolooy àddina loolooy àddina ñu ngi lay ñaanal daal yal na la yàlla dimbali ba njaboot ki mu fi bàyyi nga man leen a boot barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw leen parce que tamit am nañ ci yow yaakaar na ah. parce que tamit li am solo mooy. Euh, nit ki li nga xam ci moom ngay wax si moom te Balla Gaye 2 moom lu ñun li ñu xam ci moom en tant que ñuy liggéey si làmba jànkonte ak moom jaxasoon jaxa maanaam séq ak moom ay dem dikk liggéey xam nañ ne wax dëgg yàlla xol bu rafet yàlla may na ko ko defe naa démb loolu wan feeñ na te foo déglu nit seere bu seere ci lees dana seere ci Balla ndax Balla loolu moo am nag ñu ngi lay ñaanal encore une na yàlla taxawu njaboot gi teg ci loxo may leen tamit ngeen seen waajur aw fan yow sa rakk Sa Thiès ak famille bi doom yi mu fi bàyyi yépp ak njaboot gi defal ko bépp doomu aadama di la ko jala di bokk yow naqar bi la wax ne démb li am rek defe naa dina dalal xel donte metti na nag ndax mbir am ñépp jóg ñëw ñépp bàyyi seen yitte moo xam relis euh, kilifa diine la moo xam kilifa aada la moo xam ñi nga bokkal milieu làmb la ñépp ñëw say adversaire ñépp ku ne ndax gis naa ne gis naa Boy Niang gis naa Eumeu Sène Hmm? ndax du ma tudd waa géej waaye du ma tudd Gouye Gui du ma tudd Lac de ndax ñoo ñoo dëkk waaye ñi nga xam ne ay adversaire u Balla lañ ñépp sol seen ay dàll ñëw yaa ngi dégg Modou Lo donte nekku fi woon parce que danoon na Coupe d'Afrique ba ànd ak Lions yi waaye Papis mi nga xam ne bras la ak Serigne Ndiaye teewal nañ ko fa te xam naa ne bu duggee Sénégal dana sol dàllam dem jaale ji ko ndax loolu mooy ndax kera euh, euh, euh, ndax loolu lañ xam ci moom moo tax loolu moo lay wane ne àddina lépp nay rafet rek bu adversité jotee nag defante leen te booy Niang day faral di wax wax bu am solo bu jeexee jeex na ça veut dire que bu ngeen ci nekkee war a bëri bëri leen mais su jeexee na rafet parce que defe naa rivalité bi amoon ci diggante mbay gi ak ak lees yëg bi ñëwaat na ci noonu wan ñu leen ci aw foto ñoom ñaar rivalité dootu ko gën a metti waaye gis nga seen àddina fi ñu mujje ñoom ñaar nekk ay xarit nekk lépp lu nañu sequ ko ci àddina te pourtant bañ ca tolloo rivalité ba doyoon na waar loolu mooy daaru dunya kon yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam vraiment euh, les arènes nag sunu làmb ñëpp ñëw nañ ci mbir moom muy mbir moo ama am solo léegi bon loolu nag liñ ciy jàngat rek mooy mbaax rek nañu jéem a sax si mbaax rek loolu kese moo am solo moo am solo fi yenente jàmm te xam ne Sénégal ñoo ko bokk ñoo ko bokk vraiment ñoo ko bokk ak encore une fois tamit gis nañ ci acte bu nga xam ne bu ñaaw a ñaaw la te ñi koy def mooy ñi nga xam ne li olof di wax rek dafa am ñoo xam ne bu gàmm jotee moom la leen di yëkkati mooy dem gàmmo ji ngir màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais da am ñu rax ñoo xam ne nag ñoom raskati déem lañu ñoom ak njubadi dong leen di yóbbu ndax damaa xam ne ku ñëw ci armel gis nit ñi tëdd kenn yëngu tuut ñu jël nit ni yow gas di ko dugal ci bàmmeel fas ko ne won ginnaaw yow amoo fa benn xalaat bu dul di sàcc ah man de dama naan ñii est-ce que ñoom ça ñu ngi xalaat looy sàcc ay portable lan mooy portable ba ba mu jaral la di ko sàcc rawatina ci biiri armel ah parce que fi ba fi Balla Gaye xaacoo noonu yaramam taan yaramam daw Tapha di ko naxtaan ndeke sàcc moom mu ngi jéem a luñ tu posé Tapha ba liiru jaana ko mu euh, feeñal loolu ñaaw na trop loolu lu ko jar wallaay sàcc bëriwul njariñ ak non façon sàcc goo man di sàcc nag du lu am njariñ nañ ci bàyyi xel te feenee muy kërug dëgg gële sàcc baag da ñëpp maanaam ñëpp fay dem de kon yàlla nañu yàlla dimbali ba bu bu buñ fay dem mbaax yóbbu nu ñu mën noo sereel mbaax gu leer waaye yow mu ñëw ci armel xam ne sàcc rekk la fi indi nit ñiy denc ngay sàcc ah man Babacar de yow boo ne maa man nit nga sëg nit a dir ma jaaxal ndax am na loo xam ne ku koy def mën nga jëmmi nit mais wax dëgg yàlla yoroo xelum nit maanaam xelum mala rek nga yor te yenn yi du jëfu doomu aadama te mala sax am na loo xam ne dina ko séexlu dina ko bañ am na mala mala parce que ñun dañuy ay mala maanaam kaw kaw am na mala yoo xam ne di nga ko dina mara naan sax nga tegal ko ndox moo xam ne nii baaxul dag ko fa fay bàyyi du ko laal kon nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax ñi wuyuñ seen boom yàlla na leen yàlla yërëm ñi wéradi yàlla na leen yàlla wéral barke yonent bi sallallahu alayhi bu ñu tëjee loolu ñu ñëw nag ci problème mu euh, wala wax ci wax yi làmb ba tey guy gi ak guy gi mu ngi euh, dikkaat ci rëg-rëg di ko ah euh, di ko xamal ne ko daal amul sens ci combat bi waaw loolu day moom waxoon na ko Equivox gisaat nañ tey mu wax ko suñu làmb waaye loolu nag mën a gun caa wax dara nan bàyyi ba le 200 bi yaakaar naa ci la combat ba buñ ca yëggee yéen ñaar daal dinañ xam lu lu waay ma ne lu waay doon jaar bis boobu lay làmb waaye xam naa daal yéen ñaar ñëpp ku ci ne jàppal ne sa morom adversaire de taille la de ku ci kuñ ci xeebal combat bi rek boo ko ñàkkee ña la ko xeebal ñoo a ko xaj loolu moom maa ngi leen koy wax yéen ñaar ñëpp euh, école seex Mbab ba seeni mbir doxut ren six victoire sept défaite waaw waaw moo tax seen entraîneur di bada sum jàpp na ne daal mbir yi moom ak lu mën a xew moom dox na mu daan doxee doxewu ni waaw école Cheikh Mbab ba doxlewuñu ren ah gis nga ko noonu waaw ñu ngi ñu wan bébé julde mbir daal ren moom Euh, waaw marché wul ak photo boobu ngeen gis noonu mooy mbëri ñi école de Cheikh Baba gis ngeen bébé Julle gis ngeen ah yéen a gis noonu fils de Zallo ak euh, xale ya fa nekk daal ah, ñoom ñëpp ay ñoom njaaxum buñ fa jógee dem les arènes tamit ci waxi làmb ba tey rek doon doonte ñëw na ci dubalees moom tamit ñëw na ci ak ni ko ni ñu rendre hommage loolu defe naa ne mooy li ñëpp def leem les arènes ah mooy nuyuwaat Abou Ndour encore une gis nañ tamit Tafa Gueye ah directeur adjoint yu écrit ndakaaru Dakar tam itam mu ngi ci diggante Balla ak Modou Lo maanaam daal fi mu jaar ah na waaw waaw nee na jàpp ne daal xëy na mën nañ ko dépassé waaw bien sûr parce que loolu lépp liggéey la waaw waaye yow it dépassé la ci lamb dina xaw a jafe ndax kaamil nga de dafaa géey ci bëree dafaa géey kaamilu bëree la loolu moom lu leer naññ la loolu Sénégal yëpp seede nañ ko wallaay loolu ñëpp ko seede waaw euh, moom les arènes tamit ñëw na ci ñetti géants yoo xam ne ci lamb la nekk muy Jordan Elton Sococim hmm? ñooñ tamit nekk mbër yoo xam ne nii ah yëglikaay bi yaa jàpp ne taxaw fi mu ne dëgëratul ah, parce que boo xoolee ah xam na daal euh, fi mu nekk nii ci làmb moom am na fu leen doon xaare maanaam mën nañ ne actuellement am nañ ay jafe-jafe loolu nag moo sport a ànd rek yow da nekk di doxle dama benn moment mu wàcc mais nañ liggéeyaat rek sim am na combat. Euh, Jordan itam yaakaar xanaa am na combat Elton ñu ngi wax combat mais ci MMA la waaye lépp rek liggéey rek bu ñu liggéeyee rek lépp mën a ne waaw bref yi tamit bu fa duggee gis ngeen noonu ah parcelle mbooloo euh, ak école it Boy Niang tamit parcelle bu dee école it Boy Niang la Boy Niang la ngeen gis noonu 4 victoire la ñu am ñoom tamit seen mbir tamit ak 2 défaites ah parcelle mbooloo 2 victoire 3 défaites mel ni foofu tamit ren daal écrit yi bëri wu ay combat waaw moo tax ci résultat yi demee nii lool nag dañ koy comprendre waaye tamit bref yi buñ gis nañ ci bref yi Gris Bordeaux Malick Gakou Aziz Ndiaye waaye Gris Bordeaux tamit ci seen kuréel moom en tant président daal dem yëkkati nañ somb tollu ci 200 000 francs jaale ko ki nga xam ne moo di Balla Gaye muy loolu mooy am lu ama am solo loolu tamit defe naa daal moo leen mënal nitam waaw gis ngeen euh, photo yooyu ngeen di gis noonu nag ci xët yu likaay yi muy sunu làmb muy les arènes gis nga nit ñi démb pour wan leen démb ñu ball ñëpp ñu gunge ko ci naqar boobu ànd ko ak moom bokk ko ak moom kon nag lii tamit day jàngalee àddina kani nag maanaam Sénégal mën nañu di werante di nanga waaye nag waxante lu ñaaw waruñu defante ko waruñu mën nañoo nag ñàkk bokk gis-gis parce que loolu mooy àddina àddina ñëpp mënuñoo bokk benn gis-gis wala benn bëgg-bëgg ça veut dire que mu ne bëgg-bëgg mooy xulle day bëgg dàll bu weex man ma bëgg dàll bu ñuul kee bëgg dàll bu xonq kee bëgg dal bële gis-gis tamit noonu lay wutee kii day gise nii kii gise nii waaye nañ bañ fexe ba xalaat yi na rafet rek xol yi tamit ñu fexe ko laabal yéneente jàmm buñ ko defee rek jàmm ne ñooy ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di balu ñëpp àq waaye tamit di jaale supporteru Balla gay yi calki ah ñoom xaadim aw jóbbu Touba. ndaysaan moom mu nga xam dafa bëgg Balla gay ba kii Awa Diop Touba la jóge ñuy jaale si ko kon kooku xam nga ne ku bëgg Balla gay numéro 2 la te xale bu ndaw la wallaay cal ki démb gis naa ko fa ñoo ñëpp ñoom njaga di sonn ci Balla Gaye 2 tamit yàgg sonn ci Balla Gaye 2 xaadim bañ demoon ba di ko woy bu Balla Gaye ak ñoo xam ne ñi ma parce que am na ñu bëri ñu ma ca xam ñoom tamit defe naa ne bu Balla bu ko tiis dalee faw ma jaale leen ko ah ak ku ñuy wax Balla Gaye depuis Italie moom tamit di supporteru Balla di ku ko bëgg ñu ñëpp maa ngi leen di koy jaale ku lu kuy supporteru Balla daal maa ngi lay jaale ki nga xam ne moom mooy wayjuru Balla Gaye numéro 2 di di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkkuwaat ci yéen di wax que ni avec équivoque suma pur et dire lamb rek lay doon set te leer incha allah rabbi ànd ak qualité tamit parce que loolu mooy suñu credo ba beneen yoon incha allah.